salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di wax euh, wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wa juuin wa naqsin min al amwaali wal anfusi wassamaraat wa bassiri saabirina allazina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man dama am naqar bu méttee méttee méttee métti ba pare dama ruus dama am gàcce daal ci Sénégal ci sama dëkk parce que defe naa ne buñ demee ba toog ba kenn ci doomi Sénégal yi di Cheikh Ibrahim ñas Baye Niass liggéey liggéey bu rëy ci àdduna bi mu intéressé américain yi ak yeneen étranger yu nekk ci àdduna bi yëpp ba ñu jógee ko seen dëkk ay américain ñu ñëw Kaolack nga gis Sénégal situation bi ni mu métti Amérique ni mu gënee condition de vie Sénégal Baye jaral leen ñu jógee ko Amérique di première puissance mondiale ñëw tabax seen kër Medina Baye Niass loolu yëpp lu ko waral mooy bëgg Baye ak bëgg dina lislaam moo leen jaral jóge ko Amérique ba Sénégal ci Kaolack foofu ñu ñëw dëkk fa Sénégal nag ñu doon wax ne dëkk teranga la ñu ñuy dàkkan dàkkantale teranga le pays de la teranga tey xamatuma ci dara dara dara dara dara dëkk boo xamante ni kenn nekkatul en sécurité personne n'est en sécurité kenn nekkatul en sécurité chaque jour rek mën nañ laa rey chaque jour rek sa bakkan mu ngi ci xottu gerte képp kuy dox ci Sénégal waaye li am Medina bàyyi dafa ruslu man dama rus dama rus ay ñoo xamante ni diine rek moo leen ñor Baay Ñas rek moo leen ñor ñu jógee ko seen dëkk ñëw nekk Medina ngir xencu leeru Seydina Muhammad ngir xeencu leeru Mawlana Cheikh Ibrahim Ñas amuñ dara lu ñu leen di def lu dul ay doomi Sénégal waroon leen accueillir waroon leen aar waroon leen sàmm yore seen sécurité ñëw fekk leen seen kër assassiné leen lâchement c'est lâche lii dafa ñaaw te dafa métti ci xol man dama mer dama am lu ma naqari parce que lii gàcce la ko gàcce la trop trop trop trop trop trop trop trop ana pays teraanga bu ñu doon wax ana pays teraanga bu ñu doon wax ci Sénégal Sénégal yi lan moo leen dal léegi ba ñuy rey nit ñi mel ni ñoo xamante ni ay weñ lañ di rey nit ñi comme ay weñ loolu ñaaw na te métti na rawatina ak ay étranger yoo xamante ni lu leen indi foofu noonu mooy diine rek moo leen ñor ak Baay ñu fekk leen seen kër nangu seen alal agressé leen ba rey Ahmed Cissé gis nga Ahmed Cissé bu ñu ñëwee sax seen sant yi dañ koy jël sant Cissé mooy imaam assan Cissé moo tax parce que imaam moo moo fa njëkk am ay taalibe américain indi leen foofu noonu imaam Assane di sëtu Baay Ñas Cheikh Mahi Cissé moom it am ay taalibe américain imam Cheikh mi nga xam ne moom moo remplacé imam Hassan Msoz léegi bu ñu jógee Amérique rek bu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy santale seen bopp Cissé awsa yi bu ñu jógee Nigéria ñëw ñii di sant Niass ñii di sant Cissé loolu defe naa ne dara gënu kaa neex loolu ndam la ndamal lislaam la ndamal Baay Ñas la waaye malheureusement am na ñu nekk Sénégal ñu bon ñoo xamante ni duñ ay nit mala sax moo leen gën ay bandi ay saay-saay ay wëyu ay xaj di def jëf joo xamante ni jëf du ko gën a ñaaw te 4 x boobu noonu di wër di agressé nit ñi di toj këru jàmbur yi ak butigu jàmbur yi dafa yàgg dafa yàgg ci Kaolack si zone boobu rek lañu nekk zone Saloum bi biir Kaolack ak li ko wër fu ne dañ fay dem ci alimentation yi di agresser nit ñi di jël seen alal di leen caw ay jaasi te boobu léegi gisuñ état bi jël ci benn mesure pour jéem a xool ñu fan lañ nekk ñu jàpp leen te pourtant bi ñu rayee gendarme bi nekk. kuppantum biñ ci jógee ñaari fan jàpp nañ saay-saay yooyu noonu ak bandi yooyu léegi lan moo tax ñoo mënuñoo dimbale waa Kaolack ba tàggali leen ak ces voyous là ces malfaiteurs yi nga xamante ni dañoo yore 4x4 di wër di dàjj alimentation jàmbur yi di song këru jàmbur yi di leen rey di jël seen alal dafa yomb trop c'est trop facile il est temps nag état bi dugal ci loxoom jóg def pression ci kaw bandi yooyu noonu pour jëm leen a jàpp parce que Kaolack kenn nekkatul ci sécurité ndax 4-4 boobu waa Kaolack sonn nañ alimentation boobu noonu nekk mi dina bàyyi ci côté raay bi Moustapha ñaata yoon la ko 4-4 boobu noonu song ñëw gaari ci buntu alimentation bi wàccee seen ay fetal ak seen ay jaas yi ñëw agressé leen dóor leen jël seen xaalis dem ñaata yoon journaux yi jàllale nañ ko presse bi yëpp jàllale ko te mujjul fenn léegi nag lii moo ci desoon mooy ñu fekk ay étranger yoo xamante ni bàyyi Niass moo leen indi Kaolack mënoon nañ ñëw rek gàmmu wala événement beneen ñëw ñibbiwaat Amérique mais defuñ ko dañoo bàyyi États-Unis bi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi fa bëgg a dem te mënuñ faa dem ñëw kawlax ñëw Medina bàyyi tabax fa seen kër dëkk fa loolu sagu Sénégal la ndamu Sénégal la ndamu Baye Niass la ndamu lislaam la buñ demee ba am doom ju mel ni Cheikh Ibrahim Niass Baye mu mën a génn ci biti wane lu tax ay étranger yoo xam ne bokkut ak ñoom xeet mu ngi bokk ak ñoom ci aadama ak Awa jaral leen ñu ñëw topp si ko ba fi mu dëkk tabax fa kër di dundandoor ak nit ñi dégg olof changé seen ay tur changé seen ay sant ñi sant Cissé ñi sant ñas ñi sant caam ñi sant Jànqa loolu lan moo ko waral mooy li bàyyi wane ci biti moo tax te loolu ndamul islaam la na mu bàyyi ñes la ñu waroon di ko sagoo di ko tiitaroo même bu ñuy def lu bon bu ñuy def lu bon ñu épargner sax les étrangers ñi nga xamante ni dëkkuñ fa parce que loolu mooy sutura waaye fu mu nekk nii gàccal nañ ñëpp man dama rus dama am gàcce fu mu nekk nii te sama xol dafa jeex kon ñu ngi lancé appel bi état nañ jóg ci lii nañ jóg ci lii dimbale waa Kaolack yi sonn nañ ci 4-4 boobu noonu di wër terroriser nañ nit ñi kenn amatul jàmm foofu noonu Kaolack ndax 4-4 boobu noonu. Sénégal sax si boppam amatul sécurité chaque jour nga dégg ñu ne rey nañ nit chaque jour nga dégg ñu ne agressé nañ nit nañ gën a taxaw ci sécurité sénégalais yi loolu moo ëpp njëriñ fuuf di jàpp ay nit yoo xamante ni dañuy marche te am ci droit di leen tëj ci kaso yi kaso yi ñu ko mérité mooy bandi yi agresseurs yi woyu yi raykatu nit yi les assassins ñooñu ñoo mérité dem kaso priorité bi mooy assaillants yi nañ leen dem wëri ji ñu jàpp leen teg leen ci yoon parce que kenn nekkatul ci sécurité te 4-4 boobu yàgg na de ça fait de dix ans mu ngi biir Saloum mu ngi sillonné Saloum partout ci département yi Nioro Kaffrine Guinguinéo ak fu ne dañ fay dem ay ndoofaan song nañ sama benn jarbaat bu nekk ndoofaan yore foofu noonu benn kenkaayeri fekk ko këram wax naa ko sant tamit song nañ sama benn waaye bu ñuy wax Moustapha nekk foofu yore alimentation ci Medina bàyyi foofu noonu ay yoon yoon am na beneen alimentation bu nekk biir Medina bàyyi tamit ci marché bi huit ci guddi lañ taxaw dajji foofu jël xaalis bi dem seen yoon mooy bu Ousmane Mbaye bi huit heures ci guddi barre circulation bi nag te police mënul intervenir te Kaolack am na ñaari commissariat bu Ndorong ak commissariat centrale bi nekk ville ba pare am caserne gendarmerie te insécurité bi tey la gën a yokk foofu noonu nañ ñu dimbale ngir yàlla suñ bakkan mu ngi ci xottu gerte fu mu nekk nii kenn nekkatul ci sécurité ku ne rek mën nañoo song sa kër ñoo fekk la fa jàpp ne yore nga xaalis ñu ray la ñun dañ faa am ay famille suñ yaayang fa suñ lëppang fa kon nañu di nañu état bi dimbalee ci sécurité Kaolack waaye tamit ci Sénégal yëpp parce que nit ñi seen bakkan ci xottu gerte la nekk ku nekk rek booy dox tey ci mbedd mi wala nga tëdd sa kër mën nañ la faa fekk ray la te ray gi bëri na Sénégal te métti na kon Ahmed Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit papaam Abdou Aziz ñu ngi ñaanal ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla may ko xolu mun te yàlla fëgg boppam mu tane ci jàmm incha allah ñaaw na metti na trop c'est lâche